jaajëf grand bi. yes mat ñu ngi jaar baay delloo ziar. waaw bi may xam doon mat ma vidéo mat mani la woon quoi. waaw mat mani la woon jamono FMP. est-ce que gars yi xam nañ loolu sax. xamuñu loolu ay ñu prise loon son bi je crois. waaw si si si defal nekkoon fa ak Dimelo. <coughs> si bi gars yi daal ñoom at koor affaire ñooñu ay responsable lañ ay Sonatel lañ liggéey ay waaw mais noonu la demee affaire yi moom léegi xam la demee day am tànk quoi. nooy loolu gars yi la xamul yow la kan man xam naa yow la kan. yes ñeneen ñi nante xam ne mais pour gars yi xam ne xamuñ. yes salaam guys euh, phonétique. Mhm. phonétique bu chambre neuf yaa ma gën a xam. yaa ma zone X laa la. waaw depuis zone X ah loolu yàgg na. binawaal boobu la ñuy doog a démarrer fii nii à man ADN ak D Black. exactement ñoom si ADN moom de temps en temps ñu déggante mais D Black gëj nañ déggeewu quoi. si loo ne. sa dernier sortie lan la waaw dernière sortie bi c'était en 2016 je pense 2016 2016 laa gëj a génne ah 2016 ak euh, phonétiquement mixtape bon depuis lors euh, boo xoolee defoon nañ raar raar nañ sax laay wax ba parce que ba léegi ñëwaataguñ quoi mm-hmm. donc amoon si yeneen yu ñu nekkoon mais ba léegi ñu ngi fi quoi lâché wuñ prise. waaw on est dans l'ombre na ah. ñu ngi si ginnaaw di liggéey ci yeneen si yeneen anam ak si yeneen aspect quoi mm-hmm. mais ba léegi bàyyiwuñu seen i peut-être que dafa am lu ndaw lu ñuy xaar rek pour déclencher waat quoi incha allah. donc on espère un retour quoi loolu force la. Hmm. loolu force la quoi parce que déjà passion passion moo fi nekk ba pare quoi c'est la passion en fait. ok donc euh, ma tey ma reporter télé Sénégal TV quoi. donc euh, tey ji concert TRG moo ñu fi indi. ok voilà donc yow ban aperçu nga am déjà ci TRG bi quoi. waaw naaj ah, sax peut-être que man daaw bi suivre naa ko mais pas pas tellement quoi parce que boo xawee déconnecté peut-être que si toile bi ngay am yenn affaire yeeg yooyu noonu quoi ñu gis ne bon aussi initiative bu naaj la parce que le fait que euh, hip hop seen di am plateau yi mel noonu loolu rek c'est déjà quelque chose quoi c'est comme nag regrouper tous les artistes du Sénégal wala soit ci benn région nga dajale leen defal leen benn show bu toll noonu après mu am accompagnement aussi bi si war loolu aussi bu buñ ko gisee en tant qu'artiste dañ koy rafetlu quoi donte bokkuñu si artistes yi mais loolu c'est à quelque chose à magnifier en fait ba pare yokk ko doole parce que je pense que bu loolu bu amee doole hip bi lay amal doole rappeurs yi la ñëw si jëriñu quoi loolu c'est le plus important. donc ce rapport ak euh, MC yi fi nekk muy taal bi muy Taaj yi muy euh, Big Dad X. waaw humainement man je pense que avant sax la musique. rapport bu extraordinaire la am parce que ñuy demlante di dikkalante la quoi lu bokkul ak musique bi ñuy def c'est comprendre que ça soit taal bi muy suñu petit frère aussi c'est la même chose dañuy déggante ci ay affaires yu bëri donc loolu mooy suñu sens ñun fii pour euh, wax gaa yi que ne xam nga ñun avant sax la musique am nañ dara lu ñu sekk ci suuf quoi donc loolu mooy rapport bu gën a bu gën a dëgër aussi bu gën a bu nga xam ne mooy daw suñu diggante quoi. nga duggaat ci biir da ñuy jox. exclusivité quoi kañ la phonétique di ñëwaat. waaw ci single wala ci clip wala ci son wala ci projet bon je peux dire je peux dire bientôt ah bientôt. dafa vague man dama bëgg lu précis quoi. fii ak année bi jeex wala année prochaine. balaa année bi di jeex incha allah rabbi. fii lépp vaar la dañuy. non ban vaar balaa année bi di jeex amaana balaa ngay egg Dakar sax affaire yi génn. donc sur tous tes réseaux quoi sa réseau yëpp actif na. sama réseau yëpp instant bii nii ñu ngi si nekkaat di liggéey parce que comme que léegi affaire yi dafa changé aussi il faut s'adapter par rapport ak li nga xam ne moom moo fi nekk quoi defaraat sa ginnaaw basique bi yëpp nga defaraat ko avant ngay ñëwaat quoi je pense que loolu la. donc euh, gars yi xaar leen phonétique mu ngi ñëw man maay fàttaliku ndeysaan phonétiquement. waaw phonétiquement waaye wax nga dëgg loolu 2016 bi la 2016 bi la quoi mais yu gën a dóob yooyu mu ngi ñëw quoi mais on yu gën a dóob yooyu mu ngi ñëw affaire bi loolu la rek je pense que liggéey moom day am à un moment donné bu nga xam ne day taxaw tuuti mais taxaw bi du taxaw kese da nga bàyyi mais taxaw seetlu lay doon par rapport ak li ngay def ak fan nga bëgg a dem quoi donc boo demee ba nga xam ne gis nga ne lii la ak lii donc si ngay gën a mën a ñëwaat booy ñëw si ngay gën a mën a ñëw ak force quoi parce que affaire bi merci beaucoup ci disponibilité bi ñu ngi delluwaat ci biir. xool affaire yi yow nag laalaat maag bi. non man man dama bàyyi retraité naa. non di di di di <laughs> chroniquer di ah, saltel xam affaire yi. loolu la je pense que mooy loolu ñëpp mënuñoo yéegandoo seen mais am na ñu nga xam ne yàgg nañ si hip hop bi tey suñ la gisee tey ngay wax si si si xam nañ ñun bu ñeneen ñi xamul ñun xam nañ ne que ne. war nga see mën a wax quoi parce que exercer nga métier bi en fait yaa ngi dégg lu may wax nii mhm. donc noonu la fa demee affaire yi loolu la rek ñii dañuy nekk fii ñuy nekk fii loolu mooy mouvement en fait essayer comprendre te mouvement lañ wax quoi waaw mouvement la mhm. ñii dañuy nekk fii ñuy nekk fii xam nga ñu nekk si benn si benn dynamique bu nga xam ne affaire yi dina mën a grow up quoi yes jaajëf kontaan